l'observateur ak la mu jàpp ne président Sall ci calmbeer gu métti la dugg ak coowal parrainage gi la mu ko jural waaye xeexoo gi ci biir njabootam di APR naka noonu opposition bi koy yónnee ay kabaak yeneen te moo sax moom président ba tey ak yéenekaay bu groupe Futur Média mu ngi xamal opposition bi ne su dee dañoo jàpp ne yi ci parrainage bi dafa ëpp mën na koo wàññi ba wala zéro virgule soixante directeur de cabinet bu président Sall di dëggal wax foofee teg ca ba tey ak yéenekaay benn bi bu an ne parrainage gi kenn taxu koo jóg ak yamale moo ko tax a jóg diggante candidat yi mooy tiit candidat njalaxaan yi nga xam ni du doon leen lu may dépense yeneen ak luy sooxeel suñu démocratie la cloche moom jàpp ne affaire jamono yi ginnaaw coowal parrainage gi la ñu jógtee mooy fexe nag yeey askan wi la ñu jógtee nag mooy fexe yeey askan wi ci mbaaxaayu xalaat bi muy cadre parti bi di soxna Aminata Touré ba ci waa Macky moo nu ñor ak Serigne Mbacké Sakho yëpp kenn desul ci wàllu sensibiliser gi surtout moom di fàttali opposition bi ci boppam parrainage gi nuy ngawti ngawtee tey ne ñooy ñi ko nangu woon dëgg ci atum 2016 muy PDS di parti réew mi di AJ di yeneen un pour cent yi ci wàllu kon ñu bindu ci liste d'accord nanu ci ñeeli yeesalu constitution bi ci article 29 alinéa 4 Idrissa moom du loolee mooy wax ji jamono yi la mu xamle daal ci séminaire bi partem doon amal ci njeextalu ay bés bi ci Saly Portudal te nu jàng ko ci source a mooy ne tukki sax foofu waaye da koy dal di dakkal ñibbi si laata 19 avril le quotidien jàpp ne Idrissa Seck jël na nag péage ga wutali wotey présidentielle 2019 ak lëlëm ba mu mujjee soppar ñi ci Saly Portudal congrès d'investiture ay jegeñaale mujj ko soppar ñi kon ndaje mënu ko daal di ngembe mu doon seen mbër te ne ginnaaw si tàllal nañu rek feuille de di yoon wi mu fas yéene jaarale Sénégal su faloo bokk na ci jëlee fi mu ne ministère naatang yi dootul it doon kii jiite conseil supérieur magistrature borom alal it mu ne di investisseurs yi bëgg a ñëw ji seen alal ci Sénégal na leen teg ab sas maanaam bénéfice ya ñu ji ji as lëpp fii ci réew mi ngir Sénégal kon ku ne nag ak kala neex kilifa gu tedd gi ca Tiwaawoon Sëriñ Ababacar Sy Mansour moo ni waxee ci les du politique mu ne waaye nag ku ne am na ku ne sa xol ca amul ku neutre ci àddina si su mu ne ay ŋàññi yi du yonent feeñaale gu am mu ne diggam ak président Sall APR nag su dee danoo am écurie di ko nëbb nañ ko wax CNG bi ndax ñaar ci seen kilifa doon xeexoog seen gàngoor ba xaw tuut ñu daal di yàq ziar ba woon ci xew-xew beeg rëccu gu mu ko rëccu Abdou Mbow porte-parole adjoint bu APR ne seen parti dina jël lépp lu cay matuwaay yi mu laaj Walf Fadjri jàpp ne république bi ci boppam moo nërmelu ca Podor wane fa boppam dëgg ci anam yu ñaaw Abdoul Mbaye ba ak Walfadjri yéenekaay jàpp ne dara yëf yi daal mandargay nguur gu jeex la Direct Info moom ay laajam la xëyee tey jii ñeel Karim Wade mbaa du réewum Qatar dañu ko tere wax ci xew-xew yu mag yi ñeel wàllu politique du Sénégal wala bokk muy waxtaan ci suuf baara yëgoog Macky Sall amee lu waral Samuel Sarr mi ba ab dira ngi PDS ñëw taxaw ne mooy mbërëg PDS gi lépp Karim Wade ne patt waral Direct Info ne pattaaral googee gu yéeme la président Macky Sall doxalin wu bon ñeel kër googee la Khadim Ba jóg te Khadim Ba président directeur général Locafrique xëy tay ci observateur xamle ne ministre énergie ci boppam moo fa pare ne ak càcc gu mu duppe moom vol organisé fa ko teg bokk na ci moom PDG Locafrique yore 34 pour cent action yi kër googee di SAR ne ñoom la leen waroon yëpp ne engagement bi ñuy wuutu kër gi di benn la den def nanu ko def nanu ko bi ñuy jënd action yi ba ci levé ci marché ko Paris ñeen fukki milliards ngir bi waroon leen nag baaxee 17 pour cent ñu doon ñoom actionnaire majoritaire ñoom Locafrique ak téeméeri jël cinquante et un pour cent ya waaye dara ba fii mu ne ministre énergie ci boppam moo ca wanewul benn pas-pas ngir yëf yi yegg rax ci dolli nag ci gis-gisu Xaadim Ba ba tey ak observateur yorin bu sell di wu ci mel ni surfacturation yu dul kër gi kambu koppar goo xamante ni état bi lañ ko bëgg jiiñ Xaadim Ba ñu fekkaat ko ci libération muy wax ci mafia mu ne bu am ca Sarr ba ci bi dénk wàllum pétrole gi jëm ci juróom-ñetti bateau brut yu ñu baaxee kër gi di Oryx foofee kër gi ak cooxe gu rëy perte que quarante milliards Locafrique nag ne dinañ yóbbu yëf yi ci yoon xadim ba njit la xam yaakaar gu mu am nag ci mbir meeg boobu tolluwaay ndax jàpp na ni président Sall bëggul injustice rax ci dolli diggée woon na moom njiitu réew mi tegab daan képp koo xamante ni da nga yëngu ci wàllu yorin wu sell la di ñu jeexalee sport geeg làmb jekk lu jëm ci wàllu ndamal Balla Gaye 2 ci kanamu Gris Bordeaux waa Fass defoon kalaame bi nag ak ki ci yore wàllu jokkoo ci xama kaamu gi ci sunu lamb lu jëm ci wàllu dagg yeeg quinze pour cent yeeg coow li mu jur sanction yi ci arène bi ci xam kat yi xam le ni xaalisu lamb ji moo leen di dundal waaw turandoo karo bu baax nu muy mel